يا خير ضيف الأدب بالبر والمدد هلا وسهلا وترحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوكي yi لين دي نويو تي دي لين زياري دي لين بالو اق تي دي لين di اق di ñaan sunu borom subhanahu wa taala koor gi nga xam ne moom la ñuy dëgmal nu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim eggale kook alhamdulillahi rabbil alamin te ragal yàlla gi sunu borom wax ne moom lay def ci nit sunu borom defal nu ko ci ndax jëf lu mu rafet rafet rafet te àndut ak ragal yàlla borom bi subhanahu wa taala du ko nangu nu ñëw na ngir leeral benn hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wax ne as salawatul xams wal jumaatu ila wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna iza tunibatil kaba'ir yonent yàlla rawa muslim yonent sallallahu alayhi wasallam nee na julli juróom ajjuma ak morom ja weeru koor ak morom ja day far bépp bakkaar boo def ci kaw nag nga bàyyi bakkaar yu mag yi foofu lu mat a taxaw la ci kaw nga yu ndax du yu la ñi di def ba yi te dàq lool kon lan mooy bàkkaar yu mag yi bi ci njëkk mooy bokkaale yàlla wutal ko wujju mbàndeel loolu ñëpp maase nañ ci xam ne ci bàkkaar yu mag yi la bopp ak rëy rëy koo gis defe na yaa ko gën ak iñaan ak njistal ak njaaloo akuk ngóor jigéen tam bari lool léegi ci doomi Sénégal yi ak sàcc alali jàmbur rey nit naan sàngara xas góor su jigéen lekk alali jirim lekk riba ak jëw ak rambaaj ak fen ak seede ay fen ci boppam dënge sa ñaari waajur ak daw ci xare ak bàyyi julli ak yàq alali jullit yi ak dëddu alquran loolu mooy bàkkaar yu mag yi yonent bi nag nee na fu nit dee woor ba wooru weeru koor wa delsi su fekkee ne bàyyi na yii ma lim da koy jéggal bàkkaar yu ndaw yi waa ndax kon léegi nit ñi jàppewuñ bàkkaar yu ndaw yi bakkaar yu lalu yi loolu moo mat a taxaw su fekkente ne daal yaa ngi ba noppi di bokkaale yàlla yaa ngi woor ba noppi sa xol bii nga jàpp ne kenn gënu la koo gis yaa ko gën ndax da nga rëy yaa ngi ba noppi lu nit am ci àdduna iñaane nga ko yaa ngi ba te li ngay def la julli gi sax da nga bëgg nit ñi gis ko yaa ngi ba noppi te yaa ngi ba noppi te da ngaa soxna wala nga am borom kër yaa ngi ba noppi te yow ab bu ne nga yaa ngi war ba noppi te yëfi jàmbur yoo jekku te kenn gisu la nga sàcc yaa ngi war ba noppi yëkkati ngànnaay paaka mbaa fetal di jam sa moroomum jullit dox ba maanaam mu doxee fa ñàkk bakkanam maanaam yaa ngi rey nit yaa ngi war ba noppi ñàkk a dogatee nga dem ca baar ba naani sàngara yaa ngi ba noppi saa bu la jigéen rombee te xamuloo dara mu des góor gi jigéen nga ne kii day taxawaalu wala day njaaloo te yow loolu ku def dañ la war a dóor ñett fukki yar ba di jirim say jarbaat seen bàyyi faatu bàyyi fi xaalis nga ko yaa ngi woor ba noppi di lekk ribaat triande tappale naxaate woor ba noo mën a amee nga am ko ba noppi yaa ngi woor ba noppi di jëw yaa ngi woor ba noppi di rambaaj diggante yu bëri yaa leen di yàq yaa ngi woor ba noppi di fen yaa ngi woor ba noppi di seede ay fen yaa ngi woor ba noppi ah di dëng sa ñaari waajur maanaam li nga leen amel ci àq maanaam jéemoo koo fay ba noppi boole ca di leen dënge yaa ngi woor ba noppi maanaam bu lislaam santaane nga daw yaa ngi woor ba noppi maanaam euh, di yàq alali julli ñi yaa ngi jiite daayira këppoo kees ga wala nga takkee koy jabar yaa ngi war ba noppi dëdd alquran dama ne mbokk yi yonte bi leen assalawaatul xams wal jumaatu ila al jumaatu wa ramadaanu ila ramadaana mukaffiratun ma baynahunna iza jtunibatil kabair bu fekkee ne julli juróom ak ajjuma ba ajjuma delsi weeru koor ba weeru keeru delsi day maanaam far bàkkaar yi nga defoon yépp waaye ci kaw nga bàyyi bàkkaar yu mag yi lii ma lim léegi nag mooy bàkkaar yu mag yi kuy war ba noppi te mënoo koo bàyyi nag la yàlla xam doy na jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu is.